ñax ñax lii jours ci gannaaw defoon nañu lancement bi pour joxe financement mu amoon vraiment un bon nombre de dames bu ñëwoon ñu financé leen nit ñi rafetlu ko nag ñu ni woon tey aussi dañuy def deuxième financement bi. loolu moo waraloon ñu convoqué toutes les bonnes dames yi ñëwoon fii ñu jox leen financement bi. c'était des financements individuels ñoom ñoo ñu rafetlu ko ndax femmes yi nga fi gis tey yëpp am na si ñoo xam ni petit commerce la ñuy def. am na fi ñoo xam ni ay commerçante la ñu am na fi ñoo xam ne dañu yor seen taabal vraiment ñu rafetlu ko ndax nee nañu lii ñoom mosuñu ko am financement boo xam ne dañ koy jot ba pare te duñ leen conditionné pour ñu fay intérêt wala dara ba pare ñu faciliter leen le paiement ñoom c'est pour la première fois ñu gis loolu. ñi ñi fi woo tey mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey ci activité génératrice de revenu euh, ñu débloqué cinq millions war ko jox cinq femmes tey loolu moo doon bésu tey bi. mais laata ñu leen di jox xaalis bi dañu jiital waxtaan bi waxtaan ci anam yu sell euh, ni crédit bi tëddee ni ñu leen ko joxee ak ni ñu ko war a remboursé ñetti point yooyu daal yàgg nañ ci wax weccoog coog ñoom xalaat ba déggoo après nag ñu jàllaat ci beneen pàcc bi joxe symboliquement kenn ku nekk sa crédit ak sa fiche d'engagement boo signé ñun ñi nekk tey équipe bi encadré financement bi incha allah rabbi dañu nar a ànd ak ñoom jàpp ne benn weer lañ leen may noppaluku muy différé incha allah bi chaque weer danañu dajewaat ak jigéen ñi saafonteeg ñoom ñu remboursé crédit bi ñu déglu leen xool ni ñuy liggéeye waaw dafa am ñu ñoo xam ne cent mille lañu am am ñoo xam ne cinquante mille la ñu am noonu lañ ko séddalee ci ñi bëggoon dañu bëgg loolu la ñu bëgg tàmbalee ci loolu. looloo tax nag ñu defee ko noonu te ci tàmbali boobu aussi ñun dañ leen ciy gunge yombalal leen ko. su euh, remboursement bi ñu ngi ko tëral ci juróom-benni weer ñi nga xam ne ñoo am ñaar fukki junni ñi am fukki junni ñu ngi ko tëral si ñetti weer kon rek pour oyofal liggéey bi te du am benn tegandaay liñ la jox loolu ngay delloo te ñu fexe ba màkkaan bi ñu fi nekk dajewaat incha allah rabbi pour delloo si waat remboursement boobu ci ay anam yu leer yoo xam ne kenn ku ci ne daal di nga gis ne yaa ngi liggéey tàmbali nga ci lii te bu jeexalee sax mën nañu amaat leneen lu ëpp loolu. jox nañ ma 100000 man damay jaay ndékki damay jaay añ. xanaa kontaan ci rek di santaat bu baax a baax a baax ndax lii masuma koo am comme doole nañ ma ci ba ba ma gis ci sama bopp bu soobee yàlla dinaa respecté liñ ma wax dinaa ci jàpp bu baax a baax a baax ndax tamit su ma neexoon ma nekk ci leneen te nekkuma ci maa ngi nii di jàppale sama yaay sama yaay rek moo tax may sonn kenn taxul may sonn léegi nag dinaa fonk niñ ma ko doxalee niñ ma ko waxee yëpp dinaa ko respecté su heure bi jotee dinaa versé normal di sant seex ba tamit wax dëgg yàlla sant naa ko trop su leen neexoon duñ ma boole ci lii waaye kontaan naa trop soobee yàlla liñ ma ci wax loo yëpp dinaa ko dinaa ko gérer. maa ngi tudd Ndeye Bakary Sidibé ñu gën ma xam si Mame Boye waa tey ma ñëwoon fi jël si sama financement. waaw ñu financé ma une somme de cent mille francs man moom déjà amoon naa benn kees ko boo xam ne maa ngi si yëngu waaw lii moom bu ñëwee dafa may gën a dimbali rek waaw macha allah ñaanal Cheikh Ahmed Tidiane ba rek. jus laay defar dama daan jaay ndékki mais temps yi maa ngi si jus bi laay gën a yëngu daal temps yi jox nañ ma cent mille. waaw dinañu arrangé sax suñu xel dal loo liggéey daw denc sa bénéfice nga jël dugalaat ca la ngay jaay. man noonu laa ko gisee boo ko defee noonu la doo benn problème. bu ñu la joxee financement tamit bu lu muy gën a yàgg day gën a métti ci yow booy liggéey di remboursé ak léegi bii di ñëwaat ñu mën la financé somme bu ëpp boobu ñeneen ñi si ginnaaw tamit mën a jot ñoom tamit. waxoon nañ ko ci sunu njëlbeen nekkoon ngeen fa di ko couvrir euh, bépp jigéen bu organiser wu rek di doomu Médina yaakaar naa ne soo awalee yoon. ak sart yi ñu tëral critères yi ñu tëral war nga mën a jot ci financement bi ci nu mu rafetee loolu nag ñu sante ko sunu borom mais sante ko sunu DG mi nga xam ne mooy promoteur bi Cheikh Ahmed Ba ak Proxim Médina bi nga xam ne moom moo euh, yombalal tey financement bi dugg au niveau du crédit mutuel ba jigéen ñu bari macha allah ñu ngi waajal beneen événement également pour gën a defaa troisième tranche de financement loolu day wone rek ne financement bi taxaw na te dañ ko bëgg a def mu mucc ayib. ba jigéen ñu bari lim bu takku ci ay jigéen daal gis seen bopp ci financement bi liggéey mën a rembourser nu mu rafete Cheikh nee na nit ki nga koy may jën toujours jàngal ko nu ñuy nappi bu ëllëgee mu demal boppam moo gën ndax ñun si lancé boobu la ñu nekk kon nag ñun ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax yombal nañu liggéey bi ñun au niveau de Proxim ba lu ñu mënti récolter rek dugal nañ ko si askan bi.